salaamaaleykum ami internet univers info tv ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen deuxième numéro émission bi nga xamante ni mooy kër Ouvert ñu fa yéene koo amal ak benn ndaanaan boo xamante ni kenn dootu ko présenter euh, euh, Sénégal euh, muy animateur bu mag point de discussion lay doon euh, entre euh, ñi nga xamante ni ñooy leen di ñoom la ñuy dalal ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci lépp sans rien se cacher les yeux dans les yeux à travers l' bu ñu ci génnee dinañ xam ki nga xamante ni moom la ñu invité euh, fan la jaar ak la nga xamante ni moom la réalisé ba toll fi mu toll koy bàyyi rek mu nuyu mbokk internet yi ñu soog di dugg si suñu waxtaan salaamaaleykum Didier oh salaam mon frère Gallo maa ngi leen nuyu di nuyu tous les internautes de Univers Info di leen di leen dalal jàmm fii ci suñu suñu beneen bërëbu liggéeykaay bu weesoo télé bi ñu ngi fii la ñu nekk mooy suñu studio bi di Jufa Universel euh, Universel Jufa Universel donc euh, di leen wax dal leen jàmm. merci DJ donc euh, bu ñuy dugg ci waxtaan bi rek dañ ko faral di ko defee benn rubrique boo xamante ni Kiétu lañ ko tuddee à travers ces rubriques là dañuy jël quatre dates yoo xamante ni ces séances dafay marqué li nga xamante ni moom mooy sa vécu dañ koy commencer rek ak année 2001. je pense que nekk na année boo xamante ni marqué na la si sa àddina. waaw 2001 m'a m'a m'a beaucoup marqué dans mon existence parce que ci 2001 la sama waajur bu góor génne àdduna donc mu nekkoon la seule personne bi nga xamante ne euh, moo moo moo ñu doon jàppale ci lépp lu ñuy def euh, boobu doon fekk ñu ngi ci suñu digg jàng donc euh, nekkoon xale di jàng waroon def examen baccalauréat donc muy année scolaire mille 2002. donc bi ñuy jeexal 2001 bi rek ci décembre bi euh, ci la ci la génn àdduna donc euh, mu nekk année boo xamante ne marqué nañu trop une année aussi boo xamante ne aussi tëdd naa ci feebar ñetti weer avant même sama papa di gaañ parce que école dafa tijji rek ma feebar je suis tombé trois mois yoo xamante ne j'avais des même pour jàngi après bi ma demee ba commencé tane aussi paa bi décédé mais je me suis relevé quand même après donc janvier bu mu ñëwee ma xam ne kat euh, lii lii jot jot na. donc il faut que ñu ñafe metti na trop mais on s'est battu euh, premier semestre amuñu moyenne donc deuxième semestre ci lañ ñafewaat ba amaat moyenne yàlla dimbali aussi ñoo suñu bac donc waaw mu nekk boo xam ne marqué nañu trop quand même. ci moment bi nga xamante ni moom nga ñàkkee sa waajuru góor ñuy ñaan yàlla yàlla xaare ko aljana yokk ay leeram taas ñu aussi si barkeem euh, mais moment bi nga xamante ni moom la décédé yow ci fan la la fekkoon jour boobu noonu bu fekkee mën nga si ñëwaat. effectivement boobu maa ngi maa ngi Vélingara xam nga man Kolda laa jàngee dans dans la région de Kolda laa jàngee dans le département de Vélingara donc jour bu euh, euh, on était de retour de de de fête de Korité su ma jumulee suñu professeur ñëwul donc bi ñu xëyee rek ñu dem kër benn copain teg fa dem fa di naan caayan te li gën a grave mooy su ma bi may génn suñu kër bon temps fixe moo amoon quoi dégg naa fixe bi di sore à huit heures ma naan woy kii boobu teel naa woote di génn dem Euh, parce que sama rakk yaay laa nekkoon quoi maman soit dama koy nuyu de passage ak jëkkëram Abdou Karim ils ont beaucoup fait pour moi donc euh, bi téléphone bi sonné ma ma ma may génnoon dem jàngi ndeke dañ doon annonce sama décès pap bon comme ko ñun jànguñu rek ma génne dem ñu dem kër copain quoi teg fa naan caayet léegi li ci gën a garaaw mooy copain boobu ñoom dañ leen papam dañ ko affecté woon bees Vélingara donc suñu waa kër xamuñu ko léegi ñu may wër ci dëkk bi rek huit heures ba onze pratiquement onze heures ñu may war ci dëkk bi léegi bi ñu ma gisee fekk juste may fi ñu toogoon foofu ma ne copain bi wat ma ndel temps yoon de rek laa doon watu léegi mu may wat ndel noonu copain bi ñëw kenn ñëw ne ma sa pap mu ngi lay wër tonton Karim quoi moom la ñu wax sama pap rek ma ne ko booy gaawal kon ma dem bon bi ma ñëwee dugg suñu kër fekk kër gi fees dell ay sama yaay di jooy rek bon bi ma duggee bon euh, mu daw côté boobu j'avais pas compris quoi parce que kër gi foofu euh, doo sa xel lu dem si Dakar sax quoi yow tu te dis que am na lu xew ci kër gi. donc non maire bi daw ko affaire di ma wax ci pël gidomaa yi gidomaa yi gidomaa yi mooy sa soppe dem na sa soppe dem na. et là j'ai compris que man sama seul soppe c'était mon père et voilà donc euh, après on a quitté Vélingara pour venir à Dakar et euh, loolu jour boobu daal ci loolu la ma fekk. demam boobu noonu quest que qu'est-ce que ça t'a fait réellement en tant qu'homme Mais écoute, c'est, c'est, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup même affecté dans ma vie. Parce que sama papa c'était notre seul souteneur. Comme je dis souvent, man aw ma nijaay bu am alal aw ma keneen ku may dimbali c'était c'était sama papa rek moo daan def tout ci suñu études dans nos études moo jàppale ci lépp donc peut-être que tey si c'était si si mon père que du fi nekk daan nekk parce que j'étais super à l'école et voilà je j'étais bien à l'école et puis j'avais des ambitions très très mais après gàllankoor nañu suñu lu bëri ci faute de moyens on a eu des problèmes de moyens pour continuer suñu étude parce qu'après le décès du père donc du papa personne n'était là pour pour pour pour, pour t'aider donc à un moment donné il fallait travailler pour soutenir la maman et les et les sœurs et donc mën naa ne loolu bokk nañ ci li nga xamante ne arrêté arrêté loolu nañ suñu jàng. dese euh, euh, boobu arrêté sa jàng ñu ñëwaat ci benn année boo xamante ni euh, soriwul dara ak 2001 muy 2006 4 ans date boobu lan lay def ci yow. waaw 2006 c'est c'est c'est l'année où j'ai commencé métier bi ma nekk tey muy la rajo donc 2006 euh, laa ko commencé avec un projet de de l'UNESCO qui s qui s'appelait les centres multimédia communautaires c'était un projet qui consistait à faire des radios et des télés dans les des, des radios et des et des cybercafés dans les coins les plus reculés du Sénégal donc de mu fekk ma Vélingara encore donc foofu parce que foofu sama dëkk la foofu laa miin donc mu fekk ma fala laa commencé ci benn rajo bu ñu naan Bamtar Euh, donc wala euh, on a commencé là-bas la radio avec des formations avec beaucoup de formations en radio on beaucoup formé en radio donc voilà at moomu daal ça nous a beaucoup marqué. Euh, turu Zeka bi fan la jógee ak yow naka nga tudd sa sa sa sa tur dëgg vrai nom c'est c'est El Hadj Seydou Nourou donc Zeka bi nag comme. Zé sama xarit ñoo ma doon wax Zé Zé bi Zé alors quand j'ai décidé d'être animateur je me suis il faut je trouve un j'ai mis le kan ma dagg kan bi def ka donc mu nekk ZK Nourou donc Seydou Nourou donc mooy ZK Nourou. mais est-ce que mën nga ñëwaat tuuti si li nga xamante ni moom mooy sa parcours ci métier bi nga xamante ni moom nga choisir def ko. effectivement donc on a on a démarré euh, en 2006 donc à Bamtar FM donc 2006 2007 2008 je suis parti en Gambie donc par hasard te parti là-bas pour voir une ma petite sœur Aïcha bi ñu moo xam ne elle était mariée là ma demoon seeti ko pour euh, pour waxtaan pour seeti ko ni parce que dafa sëy woon foofu ñu gëjoon ko gis ñu dem seeti ko donc euh, par hasard je suis tombé là-bas euh, sur une radio je suis parti la visiter donc le lendemain quand je devais rentrer ki ma fekkoon woo ne ma kaay wuy patron rajo bi nee ko dafa am fi ñëwoon dem di visiter rajo bi c'est animateur après ma dem maag waaj ñu waxtaan bi ñu waxtaanee bon le gars il a compris que ne am na lu tuuti donc moo xam ne am na lu ma xamoon tuuti techniquement et puis là le gars m'a proposé de, de venir travailler pour lui il s'appelle Lamine Aladji Lamine Manga donc un gars qui a beaucoup fait pour moi qui m'a beaucoup appris mu nekk un journaliste gambien donc 2006 euh, 2008 boobu laa commencé Gambie tour à tour je technicien animateur producteur après ma nekk directeur des programmes de la radio et au fini je suis euh, ma nekk directeur rajo bi. donc euh, pendant deux ans comme ça j'ai dirigé dirigé un groupe de presse bi parce que moom il avait deux radios et des sites euh, en ligne donc une radio à Bassé Bassé c'est au sud de la Gambie vers Vélingara donc euh, ma jiite rajo yooyu donc euh, en même temps aussi foofu laa commencé télé doon def une production extérieure de la télévision gambienne donc une émission avec un ami donc on a commencé là-bas la télé et puis trois tours jusqu'en 2014 Donc c'est l'année où j'ai décidé de rentrer au pays parce que voilà, un moment donné, je me suis dit que amatul woon dara lu may prouver Gambie et il fallait que ma avancé ci télé et pour avancer ci télé il fallait que je quitte la Gambie parce que la Gambie était un peu limitée quand même par rapport ak benn télé moo fa amoon et puis ak régime bi fa nekkoon et tout ça donc les choses étaient un peu compliquées donc moo tax ñu ñibbisi euh, en 2014 ñu ñibbisee donc on est Euh, ba 2015 sans rien faire pratiquement di dégg dugg di génn dugg di génne xam nga boo ñibbisee Sénégal donc voilà c'est un peu speed donc vitesse yi duñu benn mais quand même on a été très patient après ci la commencé euh, Top FM en tant qu'animateur principal de la radio doon def les matinales de 6 heures à à heures après animé aussi de 10 heures à midi et puis aussi ma nekk RDV doon def émission bu tuddoon sama choice tous les jours en direct de 18 heures à 19 heures doon def yenn plateau yi et jusqu'en 2000 17, euh, j'ai commencé à la Sen TV. Donc ça fait trois ans que je suis là-bas trois ans nga nekk fi nga xamante ni mooy Sen TV euh, est-ce que yow euh, par rapport ak li nga xamante ni moom nga joxe Gambie par rapport ak sa talent est-ce que Sen TV li nga xamante ni war na la ko delloo yow en tant que un animateur professionnel est-ce que Sen TV jox na la ko. je pense pas je pense pas parce que parce que tey Sen TV euh, je je ne dirais pas que je fais partie des meilleurs mais quand même je fais partie des bons animateurs qui sont là-bas je respecte bien tous mes collègues jox naa mais je sais que ne je je peux faire euh, te ñoom sax xam nañ ko ils savent bien ce que je veux faire ils savent bien qui je suis ils savent bien ce que je peux apporter à la télé mais comme je dis ñun on force rien man je force rien et j'ai même pas le temps de forcer les choses euh, je fais les choses naturellement lu ñu sentir liggéey on le on, on travaille ensemble affaire télé sans sanction là c'est des tu tu tu sens une chose nga ne xaaral def ko kii wala ma def ko kii rek mais ñun on force rien on on duñu duñu duñu duñu forcer dara duñu duñu buxurloo pour am dara mais je sais que ne am nañ talent am nañ expérience on est très bien respecté dans ce métier am nañ carnet d'adresse donc voilà et puis on est polyvalent aussi on est très polyvalent dans le métier et voilà pour moi c'est ce qui est important et, je suis bilingue je parle français je parle anglais je parle pulaar et voilà euh, li ñu yàlla jox xam nañ ko donc duñ ko passé passé et puis on est patient pour ñun c'est ce qui est important il faut être patient dans la vie li nga war a am di nga ko am seen TV bu suñu wërsëg jeexee dañuy dem feneen bu suñu wërsëg jeexul on on restera là-bas. qu'est-ce qui que gis nañ ay boy yoo xamante ni sax nekk woon seen TV leen fa jiitu bi ñu ñëwee nañ fa seen empreinte am nañ ay yu mag yoo xamante ni ñoo ngi koy def que ça soit ci télé bi wala ci rajo bi pourquoi pas DJ Zeka. Euh, peut-être la question boobu dañ koy dañ koy dem laaj ko euh, euh, ceux qui décident de, de donner ces émissions la aux animateurs man euh, ça me dérange pas que comme je t'ai dit question de feeling là s'ils sentent que ne ils veulent donner des émissions à d'autres personnes ça me dérange pas mais je sais que ne ak kuñ ko mënti jox ak ku mënti doon ëpp ñu ma talent gënuñu ma xam télé ak rajo ëpp ñu ma relation ëpp ñu ma carnet raison de plus quand même nga war a imposer dem euh, wax nga xamante ne ñooy responsable yi ñu jox la li nga xamante ni moom mooy sa sa sa gëdd foofu. je je je te dirai une chose euh, yow ni nga ni nga ko dégloo ba gis ko keneen ak keneen déglu ko ba gis ko ñoom déglu nañ ko gis nañ ko xam nañ xam nañ télé moo tax ñu ñu teg ay télé donc ñoom xam nañ li nekk ci DJ Zeka yëpp. donc man j'ai pas besoin d'aller taper à leur porte pour leur dire donnez-moi des émissions woon jox ma bi. donc euh, je te dis encore une chose xam nañ li mu mën xam nañ may kan xam nañ ce que je peux faire et comme je te dis am naa talent et je suis très bien respecté dans ce métier très bien respecté même je te dis et am naa carnet d'adresse bi am naa tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut maintenant nag s'il s'il s'il donne des émissions à d'autres c'est des décisions que je respecte c'est des décisions que je respecte xam man la ma doon nekk sans problème ma toog en âme et conscience man est-ce que mën naa non je me pose pas la dama ko mën alhamdulilah parce que j'ai j'ai fait des formations j'ai j'ai voyagé j'ai fait des découvertes xam naa lan mooy télé xam naa lan mooy rajo et je sais comment gérer euh, des choses je sais parce que tey li gën a mé li gën a li gën a jafe tey ci ci ci ci animateurs yi moo nekk ñun comme je t'ai dit on sait gérer des plateaux ak même bu dee dix personnes mën nañ ko gérer on sait le faire euh, on on sait on sait comment parler avec un invité et on a eu l'occasion de côtoyer pas mal d'artistes yoo xam ne dañoo am notoriété dans le monde je te dis pas au Sénégal mais dans le monde quand j'étais en Gambie j'ai eu la chance de côtoyer pas mal d'artistes yoo xam ne ñu ngi ils ont ils ont une notoriété extraordinaire bi ñu ñëwee Sénégal aussi la même chose donc voilà et on est très bien respecté pour man c'est ce qui est important on est respecté et puis on a du talent et puis le reste ça pour man ça viendra. mais pour le moment ba ñaata émission ngay euh, animer ci télé bi euh, wala ci rajo bi aussi. Mm, radio radio j'ai arrêté euh, depuis un moment j'ai arrêté la radio. Pourquoi? Mm, bon c'est une décision personnelle parce que man a commencé woon rajo bi di def di def et puis à un moment donné j'ai eu qu'ils ont fait des changements ci planning rajo bi sans m'aviser euh, quand ils font des choses sans t'aviser vaut mieux que tu que tu te comme je te dis man man xëccewuma dara et j'ai du talent. donc amu ma dara lu may forcé. mais avant d'arrêter waxtaan nga ci ak responsable yi. Ah, waaw waaw waxtaan ci ki ci war a waxal et puis voilà on et puis on est passé à autre chose à la télé je fais bon week tous les samedis matin et puis la semaine maa ngi ci sama yëfu bopp donc voilà et puis tu sais euh, être à la télé tous les jours c'est très difficile c'est pas facile et puis da lay tënk ci lu bëri et puis ñun on est on est on a sur beaucoup de choses on est vraiment ouvert on a des ambitions on a on a des choses qu'on mettre sur place voilà. tey euh, être à la télé tous les jours c'est notre travail nag on dirait pas que ne duñ ko def mais buñ koy def tamit dafay am lu muy àndal voilà mais euh, on préfère ñëw def li ñuy def et puis voilà. su ma la déggee li ngay wax euh, je vois que en tant que en tant que animateur li nga bëgg a apporter carrément Sen TV apporter woo ko fa du coup sentiroo fa sa bopp à l'aise non je suis à l'aise ah ma sentir tout Sen TV j'avais arrêté. parce que am na fula boobu le jour où je vais plus sentir la télé je vais je je vais arrêter et voilà comme je le dis c'est-à-dire liggéey da ñëw ci entreprise ñu ne la liggéeyal li li mooy sa liggéey defal sa liggéey nu mu waree je sais que ne sama bon week-end maa ngi koy def ni mu waree je m'absente pas maa ngi sant yàlla yàlla mu ngi may wér gu yaram maa ngi dem liggéey et je respecte mon métier maa ngi dem xëy heure wàcc heure pour man c'est ce qui est pour continuer toujours ci sa biographie dañuy boole 2012 ak 2014. doon na deux dates deux deux années yoo xamante ni aussi marqué na la. waaw euh, bon 2000 2012 ça m'a marqué dans ma vie pas ci sama carrière sax ci sama vie la ma marqué parce que c'est c'est l'année où je me suis marié c'est l'année où j'ai eu une fille donc ma fille est née en 2012 en certain 9 novembre donc euh, voilà euh, moo tax 2012 aussi année bu ma marqué la. Kaja il s'appelle Kaja donc sama sama rakk bu jigéen bu ñu tuddee sama yaay laa ko tuddee donc du coup elle porte le nom de ma mère donc bébé Kaja donc euh, voilà 2014 aussi c'est l'année où j'ai pris une décision parce que rentrer au pays c'était pas une décision facile parce que Gambie j'étais bien là-bas j'avais tout là ba donc voilà j'étais très bien même là-bas donc euh, c'est l'année où j'ai pris une décision de rentrer au pays une décision qui n'était pas facile et une qui, qui a eu beaucoup de conséquences dans ma vie donc voilà euh, mais bon sant yàlla lépp c'est la vie et puis la vie continue lépp c'est la vie la vie continue ami internet on vous rappelle qu'on est là avec euh, DJ ci seen émission bi nga xamante ni mooy cœur ouvert ñu ñëwoon tey fas yéene waxtaan ak moom ci lépp les yeux dans les yeux sans rien se cacher comme vous l'avez euh, déjà vu dañuy continuer rek ak moom ci yeneen euh, question DJ je voulais juste savoir sa àddina wala si sa carrière lan moo la ci gën a marqué li nga xamante ni lu neex la mais aussi euh, euh, que muy lu naqari. waaw je vais commencer par lu naqari après ba jeexee lu neex li bon li ma li may gën a naqari ci sama carrière leen rek mooy que le fait que sama papa fekkeewul sama njëriñ c'est une chose qui me qui me hante tout le temps parce que su ma sañoon tey dërëm bu ma ñàkk rek mu mu fekkee ci mu barkeelu ci mais comme je dis souvent ñoo ngi siy bay suñu waar parce que sa waajur bu génnee àdduna li nga ko desee rek mooy di ko ñaanal di ko wàccal ay kaamil di ko génneel ay sarax pour man loolu moo important et ñoo ngi jël ci suñu ñàkk di ko defal loolu pour man c'est ce qui important mais li ma ci gën a marqué li ma ci gën a neex et je le répète tout le temps mooy quand une fan de mois je dis bien une fan ku jigéen euh, euh, daal di may wàccal kaamil te kaamil moom si boppam moo ko jàng une personne moom ci boppam moo jàng kaamil ba mu jeex bi mu telloo bi mu tolloo ci ñaan woo ma ne man la dama la doon wàcceel kaamil lu waxal say soxla te nga wax amin maa ngi lay ñaanal alors c'est une chose qui m'a qui m'a <laughs> vraiment Euh, parce que mënoon na jël ay nit ñu wàccee kaamil bi mais moom si boppam moo jàng kaamil ba mu jeex donc juste pour moi et loolu c'est ça m'a vraiment marqué sama marquera pour toujours parce que ñun ay ay doomu daara la ñu xam nañu kaamil ce que lu muy def ci nit sama yaay sama yaay doomu daara la donc moom daara la def moom ka ba léegi nii heure bi nii boo demoon kër gi yaa ngi koy fekk mu ngi ci ci ci ci téere di jàng donc voilà c'est donc sama yaay ni mu fonkee téere nit bu bu la jëlalee jël téere wàcc la kaamil donc doo def lu sant yàlla et puis waaw ça m'a vraiment marqué. marqué en plus nga ni doomu daara nga te su ñu waxee doomu daara dina euh, dinañ suñu xel dina dem ci ay qualité yu baax ay jikko yu baax DJ boo ñu doon citer deux choses yoo xamante ni mënoo ko supporter ci nit lan lay doon. deux ci nit muy benn bi mooy injustice. waaw injustice moom wax dëgg yàlla mënuma ko mënuma ko supporter ci nit beneen bi nag mooy euh, mooy nit ku dul jox nit worma ma c'est des choses que je supporte pas quand même parce que nit nit da nga war a jox nit ku ne ma ak situation bu mënti nekk foo faut respecter les gens del joxe worma ma c'est c'est important euh, gis nga ci li nga wax sànq ci doomu daara ak nit ñu yaree sax mooy impacte ba suñu métier daf ñu impacté ba suñu métier c'était pas c'est un métier que le destin a choisi pour nous et puis voilà ñu ngi ci sant yàlla mais dafa ñuy impacté ba suñu métier parce que tey métier bi ñu nekk dafa nekk métier boo xamante ne boo dul euh, boo dul je dirais bien taxawaalu wala dugg ci yenn détails wala di wut buzz peut-être doo doo nekk au sommet alors ñun loolu mënuñu ko ñun on respecte les gens ñu bëgg nit ñu respecté ñu dañu jox cër ñi ñi jox ñi ñu cër voilà nit ku nekk ni nga tolloon rek ñoo ànd ci ak yow donc voilà mooy mooy mooy kii mais daal su moo xamee loo xamante ne daal mënu ko mënu ma ko supporter ñi di moo nit ko xamante ne day day subir loo nit injustice sa sa xol day laaj ki soo dem maa ngi naan ci état d'urgence bi man en tant que may dégg ñu ne dañu dóor ay médecin xaw ma lan ma ne man en tant bu fekkoon man médecin la ma wàcc ba liggéey daje policier bu dóor ma xam naa ne dina delluwaat hôpital de waaw ndax danaa danaa xeex ñoom ba ñu ray ma parce que injustice laa ko mën a tuddee voilà ak yeneen ak yeneen euh, waaw yooyu daal ak war ma dama bëgg nit kuy jox nit war ci showbiz bi aussi gis nañ ni eh, yow ci milieu bi nga bokk ci milieu nga bokk parce que <laughs> euh, animateur nga en plus yaa ngi côtoyé artistes yi et tout mais souvent dañuy wax que ni milieu showbiz bi dafa salté ak surtout mystique bi nga xamante ni ñu ngi koy soulever tout le temps tout le temps tout le temps est-ce sentir euh, si sa yaram ni nit euh, def na la loo xamante ni genre mystique la wala ces trucs là ndax yaa ngi koy dund au quotidien ñu ngi koy dégg ah. <laughs> ñu ngi dégg ne le showbiz il trop mystique mais bon <laughs> ñu ngi sant yàlla euh, man pour man euh, samay jëf ñoo may protéger pour man loolu laa jàpp quoi li may jëf à travers nit ñi li may jëf à travers ñi ma ñi may séqal milieu bi pour man loolu moo may jox cër loolu moo protégé ci yeneen ak yeneen xaw ma ndax nit mu ngi def nag peut-être nag yaa ngi yaa ngi ci milieu nit a ngi lay tëg bër wala yéen a ngi bokk entreprise nit a ngi xool ndax yi ak yi ak yi mais man parce que c'est des choses que je fais pas du moment que je le fais pas pour man nit yéenewuma loolu aussi man noonu laa ko jàppee mais showbiz bi li ci nekk mu ngi ci ñu ngi koy gis tous les jours comme je t'ai dit euh, tu es obligé de de de de di wax lu dul dëgg wala di di di euh, di euh, quel est le mot encore di di sibooru nit ñi pour am dara donc c'est c'est c'est très malheureux pour man ni da ngay gëm sa bopp gëm sa talent euh, Gallo gis nga ndaanaan du soxor te du tiit boo mënee sa métier doo soxor doo tiit et pour man c'est ce qui important parce que tey un jour dinañ la mettre o dañ lay di nga am defi boo xam ne il faudra que tu nga relever ko et c'est ce jour là qu'il faudra montrer yow yaay kan mën na am nag ngay tëb di dal di kii di kii foog ne yaa fi nekk mais jour day am di nga mën war a relever défi foofu la mbir mi di feeñee nag. et pour man c'est ces jours là ñoo jar a sóoraale et ku nekk essayer de persévérer respecte ton métier nangul jàng nangul avancer mais dans la dignité c'est important il faut être digne donc pour man yooyu c'est des choses yoo xamante ne moo moo gën di tëb di daal mais mystiquement quand même j'ai jamais euh, musuma toog ba yaakaar na daal musuma ko sentir wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax et pour ñun yéen wuñ dara lu bon ñu kenn dara lu bon pourquoi ñu ngi sant yàlla pour man pour ñun yi ñuy def ak suñu considération bi ñu am ci ñeneen ñi yàlla dinañ ci musal ci yenn yow modèle de réussite nga quoi qu'on puisse dire donc je voulais que tu donnes cinq conseils à la jeunesse qui nous qui nous qui nous regarde à travers Univers Info pour réussir dans la vie cinq conseils. bah conseil ce sera <laughs> ce sera trop dire parce que ñun ñëpp ay ndaw la ñun ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi yoon di di wut pour réussir euh, en tout cas li gën a am solo ci sama dund loo xamante ne c'est des principes yoo xam ne moom laay woyee bi ci juut bi ci jëkk mooy nangoo jàng nangoo jàng ak looy jàng nag métier bi na mokk bu dee ay études la wutal ay diplômes c'est important il faut avoir la patience d'étudier parce que tey man je fais partie des rares animateurs yu am bac il faut le dire animateurs yu am bac boo ko doon compter bëriwul de te nee naa la bu du woon peut-être li ma daal yëpp du ma nekk animateur leneen laay nekk tey et je am na sama benn xaritu Gambien c'était un directeur benn société bu nekk bu daan waxtaan nii ci ay yéene wala bu ñuy waxtaan mu ne ma mu ne I hate when people call you DJ <laughs> mu ne il veut pas entendre que les gens mu ne la non DJ na na ma call pas parce que peut-être que euh, samay intelligence wala ni may mën a analyser des choses wala ni may ni may liggéeyee peut-être da ko da ko impressionné ba mu ne ma buggul sax ñu may woy DJ donc voilà loolu benn la beneen bi mooy avoir la patience. il faut être très patient dans la vie ñun ñëpp ay jullit lañ am nañ imaan wala ay gëm on on est des croyants nga nekk jullit wala chrétien beneen religion boobu nag am nga am nga am nga loo gëm loolu nga gëm il faut nga am imaan te imaan boobu mooy nit da ngay gëm yàlla xam ne yàlla noppi na yaa ngi dégg nit xam ne yàlla noppi mais Gallo est-ce xam nga dara tey feebar bi dal dëkk bi y a des gens qui sont en ñoo xam ne nekk nañ ci millionnaire est-ce que xam zel ñu jaay masque dox na ils sont devenus des millionnaires je te jure mais loolu mooy àdduna donc nit ki da ngay am patience te xam ne yàlla noppi na nit ku la nit ku toogoon ñu ne ko ci feebar nga amee xaalis du ko gëm feebar buy lool ay nit yoo nga tekki ci mais àdduna c'est son destin yàlla noppi na il faut être patient dans la vie c'est important beneen bi mooy nangoo liggéey sa liggéey bu la ci kenn yàpp sa liggéey barki sëriñ Babacar si man ba ma dalee liggéey ba léegi mosuñu maa ne Zeka lu tax xëyoo mosuñu maa wax Zeka defoo sa liggéey nu ware Sen TV trois ans du Bougane du Momy du Clédor du keneen kenn mosuma se woo man je suis une personne très responsable kenn mosuma ne Zeka lu tax xëyoo kenn mosuma ne Zeka lu tax defoo au contraire damay def loo xam ne sax ñoom sant ñu ma ko juste pour bien faire je prends des initiatives pour bien faire pour yow événement yi yu bëri yi ngay gis ni li ma ci sonné di def yëpp c'est mes propres initiatives man maay woote télé ne écoute est-ce que duñ def li est def li et on le fait pour faire marcher benn événement wala doxal benn affaire donc c'est loolu mooy sens de responsabilité nit ki sa liggéey def ko ni mu waree bu la ci kenn yàpp ma jox la benn anecdote dama daan tëdd nelaw sama jabar yee ma ne ma doo jog sama ex jabar ne ma doo jog su ma jógee ne ko bul ma yeewati mooy yow ne ko man nag maa mos a yéene ma jóg a liggéey mënu ma déedéet man kon su may nelaw bu ma yee man kenn duma ma yéene ma jóg a liggéey pët pët pët zeka jóg a liggéey jamais de la vie il faut être responsable dans la vie il faut être patient dans la vie il faut savoir apprendre dans la vie pour man yooyu arme léegi nag leneen li ci des nag mooy ñu fonk suñu diine bu julli jotee na nga julli bu woor jotee na nga woor julli lañ après tout lu ñu am nag loo mënti am ci àdduna boo ko say waajur ak ñi nga bokkal man yooyu samay arme aw ma leneen lu ma am bokk ak samay waajur ak ñi ma bokkal ak képp ku ci yàlla boole. je me dis souvent bi ma nekk nii su ma ci naree am dara loo xamante ne du ma ko bokk samay waajur yàlla moom ko yàlla may te leneen li mooy aussi nit ku nekk na nga fonk say nitu démb faut jamais changer dans la vie surtout ci bi ñu nekk changer da cee yomb waaw boo génnee tele ñaar ñetti fa rek changer il faut qu'on arrête ces nit da ngay fonk seen di démb te xam ne luy bu mettee kërëb kërëb kërëb damay ñibbi baat ñi tëdd suñu kër mu ngi neex maa ngi dakaar bu mettee damay ñibbi samay mbokk kon nag balaa muy metti ngay ñibbi say mbokk buy neex del dem say mbokk c'est important pour man daal man c'est ce qui important dans la vie quand tu del jàng il faut bien apprendre ak looy mënti jàng jàng ko na mokk gis nga sa métier bu mokkee kenn du la yeb bu mokkee kenn du la yeb il faut être patient dans la loo am bokk ak say mbokk ak say wayjur et surtout nag nga fonk say nitu dem gis nga nit ku baax buñ la laajee say nitu dem soo ci mënta lim ñaar bu yeboo nga seetaat sa bopp donc Zeka l'émission tire fin dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo mbokk internet univers info TV ak aussi nga ñaanal ñu parce que ay xale yu ndaw lañ yoo xamante ni euh, ñoom dañuy tël projet bi porté ko mooy ñi ñu àndal nii di liggéey juste pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice ci li nga xamante ni mooy euh, milieu journalisme ci Sénégal donc dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo mbokk internet yi di écoute merci beaucoup merci Gallo et puis je vous encourage que ne ci li ngeen nekk nii c'est le futur ah c'est le futur de de l'audiovisuel je dirais euh, parce que à un moment donné les gens n'ont plus le temps de regarder la télé même écouter la radio c'est très difficile maintenant lire journal moom waxatuma ko donc le futur c'est c'est nos et sur nos téléphones on retrouve YouTube on retrouve, on retrouve autre chose donc on vous encourage et comme j'ai dit affaire bi liggéey rek la kenn moomu ko métier bi kenn moomu ko micro yi boobu léegi ñaa ngi wax micro yi feesuñu caméra yi ñu ngi filmer Euh, cassette amatul léegi ñu ngi carte mémoire des na tuuti yeneen ak yeneen ñooy ñëw donc les choses vont avancer et voilà donc continuer de persévérer di leen wax ne kontaan naa trop ci ci li ngeen ñu li ngeen ñu fekk fii tey ci suñu suñu beneen bërëbu liggéeykaay muy ci studio bi fii studio d'enregistrement bi et tout ça donc voilà di leen encourager et voilà en espérant que ne euh, waxuñu fi dara loo xamante ne dina naqari nit wala dina heurter nit bu amee ñu ngi ciy jégalu bu baax donc lépp lu fi wax lu baax it yàlla na ko bokk ak doomu aadama yëpp. Euh, di ñaan yàlla rek yàlla nu yàlla defal jàmm barki démb dama dama euh, bi may xool tele gis euh, les opposants di défiler au palais ma ne lu dul jàmm daal jàmm moo ko gën te lu waaye di wut jamaa bis boo amee jamaa te amoo jàmm ragal di nga jaay sa jamaa ba wuti jàmm donc yàlla nu yàlla defal jàmm jàmm rek am solo et et c'est de moments très forts yoo xamante ne ñun ñëpp dañ ko war a bàyyi xel xam ne tëb dal bi xëccoo bi kërti kërti bi yëpp dara jaru ko fi nañ nañu nañu nañu nañu rafetal di di di sóor demee c'est important et qu'on kon qu'on préserve nos relations humaines man je une personne qui je une personne qui tient vraiment assez à des relations humaines donc c'est important de di ko bàyyi xel mooy ki nga bokkal liggéey ki nga dëkkal sa dëkkandoog sa famille yëpp daal c'est important ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy bàyyi xel donc nañ nañ nañ nañ ci gën a gën a gën a gër góor góorgóorlu et puis aussi euh, yàlla ñu yàlla teggil balaa bi ci nu mu gën a gaawee ñu delluwaat suñu activi activité ñun ñëpp parce que quoi qu'on dise am na ci ñu mu metti te bu continuer dina gën a metti ci askan wi parce que nu sommes un pays en, en voie de développement entre guillemets c'est ce que l'État ñu nangu ñu naan euh, c'est un développé mais nag il faut que l'on dise que ne takam dëkk yu mag yi nga xam ne ñooñu ëpp ay moyens si ñoom la metti xootuma la ñun dëkk bu ndaw bi Sénégal mais nag am nañu yàqin ne ah Cheikh Amadou Bamba lii xam nga suñu suñu maam ju baax ji mu Moulay Abdoul Aziz Dabakh dafa doon wax naan ah, ñaan day tollu moment boo xamante ne jar na sax nga gëdd borom bi ne ko xëy yow yàlla waaw tollu nañ foofu ñu naan xëy yow yàlla rusal ñu xoolal ñu ci barke Cheikh Amadou Bamba ci barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci barke Seydi Hadj Malick maam bu maam Baye Laay mi nga xam ne moo tëdd fii suñu wet ah sama maam ju baax ji Cheikh Omar Foutiyou ak sama turandoo Cheikh Seydou Nour Tall nu Thierno Moutaga njaboot yu baaxu Sénégal yëpp eh, yàlla suñu borom ñu ngi laa ñaankat kat nga tegg ñu balaa bi ci barke ñooñu eh, keroog Ndiogu Afia wax na ko nee na am na ñoo xam ne bu leen neexoon tey dakk mu ne am nañu mag yu baax yoo xam ne bu leen neexoon tey tey balaa bi dakk waaye nag ku nekk ak dimension bi nga ànd ak yàlla xëy na ñoom yàlla wax na leen li mu leen di wax ba pare wala wan na leen li leen di woon ba pare loolu loolu la ñuy xaar donc ñu ngi ñaan yàlla tegil ñu balaa bi eh, ci nu mu gën a gaawee encore une fois di leen di remercier et puis di leen encourager et di leen féliciter et voilà yàlla na yàlla jëmale lépp kanam univers info ca kaw ca kanam et puis on est de tout cœur avec vous n'hésitez surtout pas à, tout moment quand vous besoin de euh, parce que yàlla may nañu relation yàlla may nañu xame bi koo leen soxla ak luñ ci mënti taxaw dinañ ci taxaw bu soobee yàlla. loolu dal na xel euh, ami internaute c'était tout pour votre émission muy deuxième numéro bi on vous donne juste rendez-vous très prochainement ak beneen invité à la prochaine merci beaucoup